asalaamaaleykum mbokk Sénégal yi nekk ci biir réew ma ak bitim réew mi yépp maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man man Diagne laa tudd di seen mbokkum taalibe eh, nekk ci réewum Japon dafa am lu ma bëgg a waxtaan ak yéen lu gàtt rek mu jëm ci eh, tolluwaayu suñu réew ma di Sénégal ñun ñëpp yaakaar naa ni wala ñi ëpp ci ñun umpalewuñu Euh, lii di xew ca réew ma fa mu sosoo ak fi mu jaar ba fi mu toll yaakaar naa ni képp ku am sam xel te dëgg rek tax lay wax xam nga ni li lan li lépp moo di ni ñii jiite senegal ci jamono ji ñu toll li ñu bëgg moo di ni kii ñuy wax président Ousmane Sonko du bokk ci élection yi def nañ lépp lu ñu man ngir gàllankoor ko ba agsi nañ fi fii ñu agsi jaar nañ ci ay jaar-jaar yu metti senegal loru na ci li ñuy ñaan nag moo di ni Sénégal bañ jaarati ci ay jaar-jaar yu metti yu mel noona waaye man dey yaakaar naa ni bu fekkee fii ñu jëm nii jaarale ko ci yoon lu xewoon ci 2021 lu ko raw dina xewaat te Sénégal mën na ci yàquli yàqule gu bare bari moo tax may ñaan kilifa yi ca réew ma kilifa yépp nag ñu jóg wax wax ca kaw ba ñépp dégg ko nde mbir mi umpatul kenn e, jaay doole gi bari na wàcc yoon gi bari na jalgati yoon gi bari na e, tooñ nañ ci doomi Sénégal yu baree bari damm nañ ci ay xale yu baree bari tëj ci xale yu baree bari rey ci xale yu baree bari te loolu lépp mi ngi xew ci réew ma ñu bari di ko dégg te man dégguwuma ñu bari àddu ci nañ ci war a àddoo waaye nag fii ñu toll nii bu ñu ko bàyyi bàyyalee bàyyi ñu yor réew mi ñu def lu leen neex dina àgg foofu euh, nit ñi dinañu jóg fipp te bu ñu fippoo man yaakaar naa ni bii yoon mbir mi dina àgg fu ñu bëggul mu àgg fa maa ngi ñaan képp ku am kàddu ca biir réew mi nga jóg wax fexe ba lii ñuy bëgg a àtte ci fukki fan ak juróom-ñaar mu tegu ci yoon bu fekkee àtte nañ fa lenn lu teguwu ci yoon maa ngi ñaan ñépp jóg dox ñaxtu ko naqarlu ko waaye bu ko kenn nungu jërë ngeen jëf Thank you.